salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun niñ ko baaxoo di def ci kilifa gu génn àdduna ci tarixa bi wala xadara bi ñu jotal ko mbokk taali bi yëpp tey nag ci bis bi nga xam ne mooy altine di bis bu tedd di bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ñëpp jot nañ xabaar bu wér ci génnuk àdduna kilifa gu mag ci tariixa bi na kër Cheikh Al Hadj Malick muy sunu baay bu tedd bi di borom xam-xam bu tedd di muqaddam ci kër gi doonoon muqaddamu Al Hadj Mansour radiyallahu anhu waaye nekk koo xam ne ñu ngi ko tuddee Seydi Al Hadj mu jege woon ko xam ko lool waaye doonoon borom xam-xam li gën a yéeme ci moom mooy aspect xam-xam bi muy góor gi Mansour sunu papa Mansour Diop bu Koungheul. ñu dëkk ak moom ci Koungheul fële eh, nekk nitu yàlla bu mag borom xam-xam ku ñeme woon responsabilité waaw ku ñeme woon dépenser ci doomu aadama waaw bëgg lool xalifa bi nag xanaa bi wér-gu-yaramam soppi ko rek nga xam ne wératul ci lañ ko gisatul muy assister ci yenn cérémonie yi waaye foo mosaan gis xalifa bi ci burdu yeeg yëpp yaa ngi koy gis ci wetam mu dëkk accompagner fu nekk ci biir réew mi ak bitim réew yàlla dogal nag jamono yi yëpp yaramam sutante woon ci coobare yàlla yàlla dogal mu jóge fi tey ñu ngi koy jaale mbokku taalibe yépp di wax ne ku jot xibaar bi nga ñaanal ko yàlla ndax ñaan rek moo am solo euh, bàyyi alxaaji Mansour Diop yàlla ko yàlla teeroo germande wanale ko turandoom Seydil xaw mi alxaaji Mouhamadul Mansour te bàyyi xel ak euh, teg yërmandeem ak suturaam ci njaboot gim mu fi dese yëpp boroom xam-xam la woon bu bu tedd كودان جانغلي jàngale فوكو مسان غيس foo ko mosaan gis rek mu ngi ci farata foo ko mosaan gis mu ngi ci luy dundal mission Cheikh Seydil Hadji Malick ci Tiwaawoon ci Thiès ci Koungheul ci fu nekk rek boobu taxawaay lañu xamoon ci moom mbokk yi kon mu ngi noonu xibaar benn rek la genn àdduna Baye Alxaaji Mansour Diop Koungheul muxaddam Seydil Hadji nekkoon fidèle compagnon ci xalif général Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour di ku cher ci moom kon ñu ngi ko jaal xalifa bi di ko jaal mbooleem usra al malikiya di ko jaal mbooleem tarixa atijaniya di ko jaal mbooleem islam bi yëpp loolu daal leen doon danañ ko jotal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.